بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom noo ngi koy bàkk di ko kañ di ko jaare ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi nga xam ni sunu boroom nirlewu ko kenn noo ngi julli di sëlmal ci ab yonente muhammad salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi di ñaan sunu boroom mu dëkkee dotti waamam xéwal ci kaw yonent boobu ak ay saxaabaam ridwanullahi alayhim ajmain dellu siwaat nañ ci sunu ñaareelu xaaj ci sunu tomb boobu ñu tàmbali woon ci àllarba ji weesu ci kayfa rabbaytu waladi naka laa def ba yar sama doom ba mel ni mu mel bu ñu fàttalikoo ci xaaj bu njëkk bi am na tomb boo xam ni tomb bu am solo la dañ ko defoon ka muqaddima donte ki déglu tàmbali bi mën naa amul jaaxle ban relation la loolu am ak yar waaye ki ko déglu ba mu jeex ca jeexintal baag dana xam ni lan doon wax am na jokkoo gu rëy ak yar kon ñaareelu xaaj bi tey nag maa ngi koy tënk incha allah ci ñaari tomb tomb bu njëkk bi mooy tànnal sa doom yaay ju baax ñaareelu tomb bi dëkkee ñaan yàlla mu wërsëgal la doom yu baax ñaari yëfa ngoog yoo xam ni benn bu ci nekk sabab la ci nit am doom joo xam ni doom ju baax lay doon muy alwaladu saalix te waladu saalix buñ ko waxee aji yar ji loolu dong la bëgg na ki yar moom daanaka jumtukaay yi mu jëfandikoo yépp boo ko boolee ba ca mujjantal ga jeexintaloo mooy na am doom ju baax bokk na ci mbir yi nga xam ni nit da caa war a sonn lool mbokk yi mooy yar ak njobootam yarab lislaam bu wér ndax mbokk yi ñu xam ni koom mi gën a rëy moo xam ne doomu aadama am na ko ci kaw suuf ba pare faatu ba ko fi mooy doom ju baax moo tax boroom xam-xam ne joxe xayru kanzin yakk na zakul yakk na zugul muslim aw yatrukuhul muslim koom-koom mi gën a rëy mi nga xam ne ab jullit am na ko bi muy dund faatu ba ko fi mooy doom yu baax avantage bi mooy da nga koy jariñoo ci sa dund l'islam jariñoo ko boo faatoo it nag ñu di la jariñ njariñ loo xam ni ëppoon naa bañ a am doog a faatu ku xam mbokk yi doom ju baax li muy jariñ way jur bu faatoo da nga yëg ni ëppoon naa bañ a am yonent bi alayhi salaatu wasalaam dani ida maata al abdu inqataa amaluhu illa min salaas doomu aadama bu mën a doon bu faatoo dikkal ak boromam yépp buum ya ci doxoon yépp ay dagg ba mu des ñett loo xam ne daf koo defoon ab sarax teen la woo daara la woo école la woo lu mu mën a doon lu nit ñi jariñoo te yàlla rek taxoon mu def ko yiw wa da koy fekk foofu ca bàmmeel mu teg ci aw ilmin yuntafau bihi wala xam-xam boo xam ne nit ñi dañ koy jariñoo yàlla suñu borom defal nu dimbal ca loola nga xam ni xam-xam la boo xam ne nit ki da ko doon joxe ngir yàlla doomu aadama yi di ca jariñu loolu fii ak ña ngi cay jariñu rek loolu da koy fekk biir bàmmeel aw waladin saalihin yad'u lahu wala doom ju baax joo xam ne daf lay ñaanal te xam ngeen doom ju baax ju lay ñaanal jàpp naa ni doom juñ yarut wala ku nekkul doom ju baax moom taxut di wax kon bokk na ci njariñ yi nga xam ne njaboot gu baax gu yiw am na ko boo leen yaree bañ mel nan war a mel mooy àjjana sax da ngay dugg àjjana ba noppi sax njaboot dugg àjjana te bokku leen fu ngeen dëkk sunu borom bëgg a seralee seen xol boolewaat leen kër comme ni leen ko boole woon ci àddina loolu mbokk yi neex na trop والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء الله أكبر sunu borom ni ñi nga xam ne dañoo baaxoon yar seen ak njoboot ba ñu yaru tege ci yoon wi sunu borom bëgg buñ tàbbee àjjana te bokkunu kër gun dëkk yàlla day seral seen xol xam nga ki ne ci kaw moom ku ko wàcce ne ko kay fekk sa doom yi ci suuf moom xam nga loolu ak tooñ la ndax ma nga ca kaw ba pare waaye ki ne ci suuf moom bu ñu ko yëkkatee ko ko defal nañ koy ngëneel te àjjana fa la ngëneel fekk baax kon koo kaay yëkkati ku fekki way juróom kon yooyu ginnaaw buñ ko xamee dañuy yëg ni kon jaadu na kenn ku ci nekk mu sonn ci ak njobootam jumtukaay yi nga xam ne nit ki nag moom lay jëfandikoo pour mën a yar tombab tay bi maa ngi koy def ci ñaari tomb yooyu ma junj bi ci njëkk mooy ah ixtiyaarul ummi saaliha wala ixtiyaaru zawjati saaliha tànnal sa doom yaay xëy na bu ñu waxee loolu amaan na dafa mel ni kon jigéen ñi tamit amuñ ci wàll ahankay am na tamit tànnal sa doom baay ndax ñaar yëpp benn bu ci nekk sax na ci sunna bii daa gën a siiw rek jaadu na ci bépp julit mbokk yi mu sonn ci xam naka lay def ba tànnal ak njobootam kuy nekk seen yaay ndax kooku kat mbokk yi moo mën a xam àq yim la ameel ba di la ko defal te àq yooyu ci jëmmi def gi mu koy def sabab lay doon ci mën a am njoboot gu yiw gu baax ndax kat yaay mooy usine bi ñuy defaree doom ju baax jàmbaar yi lislaam yi yaay moo leen di former ba ñu mel ni ñu mel bal sax nag comme ni ko Ahmad Shawqi doon waxee al ummu madrasatun ida a'dadtaha a'dadta sha'ban tayyib al a'raqi al ummu rawdun in taahadhu lxaya birrayi awraqa ayama iraqi yaay daal école la boo xam ni buñ ko tabaxee nañ ko war a tabaxee defar ko mu mel na mu war a mel ba ñi cay dugg bu ñu génnee génération yu baax nga nar a am moom daal xaw tuuti kon nga ne ab dër la rek ay tool la yu naat soo ko defaree ba mel na mu war a mel sabab lay doon ci mbay ma day daal di naat waaye tamit lan cay génnee ci ay meññeent day daal di mën a bari kon aji gëm yàlla ju góor ji na yëg ni dafa jaadu mu tànnal doomam yaay yaay nag buñ koy tànn waxtaanu tey wi jubluwuma ci li ngeen baaxoo ñu daan ko dégg ndax loola wax nañ ci lu bari mooy nan la ñuy tànnee yaay dina mel nii bu mel ne nga xam ne day waxtaan day mujj soppaliku naka la ñuy tànnee yaay ju baax déedéet waaye ci biir tànnin wala lan ca daan wax daf ca am ay sew-sew yoo xam ne yooyu laa bëgg a génn mu nekkum njàng tey nu ànd fàttaliku mbokk yi waxi sunu borom ji subhanahu wa taala wala amatum muminatun xayrum min mushrikatin walaw ajabatkum gis nga bu ngeen tollee ci tànn soxna sunu borom mu ne defal ndànk nga xool li ngay tànn bu baax ndax gis nga ab jaam jaam ak bët bu suufe bi ñu koy xool te gëm na yàlla nga tànn ko mu nekk sa yaayi doom moo gën fuuf nga tànn gor ak bët bañ koy xoolee nam kawee te fekk bokkaalekati yàlla loolu nag day tombeek wax yi magi salaf yi lañ doon wax naan nit ki nga xamante ni bët bi dafa pat ba bi dafa yàqu benn bi te mu am ngëm yàlla gu dër moo gën ka mel nam war a mel ci taar te ngëm yàlla ba demee wut noona gis ngeen xadisa bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci misaal nu ñuy tànnee yaay ju baax bokk na ca lam doon wax fadd tar bi zaati diin taribat yadaak tànnal borom diine boo ko defut tarxiis nga ba dóor sa loxo ci suuf xam nga ko tarxiis ba sa loxo ne bàpp ci suuf wax dëgg yàlla kooku daanu na woon ah loola misaal la mu lay wan ni kon maanaam jël bi nga daanu ndawewul loolu mbokk yi buñ ci amee dégg leneen ñu faral ko romb rek jàll waaye buñ ci defoon taxaw seetlu lu mu gàtt gàtt da nga yëg ni ndekete gis nga ki tànn soxna ki tànn yaayi doomam te tànnin wa baaxul maanaam jëll bu ndaw bi mu daanu dafa rëy maanaam daanul jëll bu ndaw maanaam jëll boo xamante ni rëq xaj na ci wala damm xaj na ci loolu loolu loolu mooy taribat ya daak kon jaadu na nit ki buy tànn soxna mu sóoraale ay doomam tànnal leen yaay jaadu na kon mu góor góorlu fexe ba yamuy visé di ko tànnee mooy xool askan wu baax du caagee tamit comme ni ko ñenn ñi defee da ngay gis soxna diw rek nga ne ah kooku de gis naa ne moom jàmbaar la xaaral ma dem jël ko déedéet waaye di xoolaale askan wi mu bàyyi ko aka caa baax ca la bokk boo seetloo alquran borom bi subhanahu wa taala day wax ni ca suratu Maryam gaaye ba ñuy yedd Maryam dañ ne ko yaa uxta Haarun ma kaana abuki imraa sawin wa ma kaanat ummuki bagiya ah yow mbokkum haaruna mi yow de say bàyyi nekkul woon def katu lu bon ah góor guy def lu bon déedéet waaye sa yaay tamit nekkul woon jigéen ju takkulus kumbaam loolu ulamaw tarbiya dañuy wax ni tegtal la bu lay wan ni kon baayam ku baax la yaayam ku baax la kon doom ju safaanu warta mën a génn ci ñoom lu dul dogalub suñu borom moo ñëw ndax baay ju baax ak yaay ju baax danañ faral di génne doom ju baax loolu ay firnde la yu lay wan ni kon nit ki tànn askan wi nga xamante ni fa lay jëlee soxna loolu lu am solo la ndax kat doomu aadama su fekkee fa mu tànnee soxna ku baax la amaan na yaay ji bu ñëwee day nekk ku baax loolu sabab lay doon yaay ji amaana dana jàng ci quran loo xam ne dana ca mën a yar njobootam dana ca xam ay jikko yu rafet ngir askan wu baax yu bàyyi ko ba mën caa yar am njobootam dana jàng ci lu dagan ak lu xaraam ba mën caa yar am njobootam waaye dina mokkal lenn ci dund salaf ak yonent yàlla yi seeni nettali te loola xam nga ni ku koy digtal ab xale jumtukaay bu rëy la ci jumtukaay yi niy faral di yaree bal nag xam ngeen ni ku am am ay maam yu baax ay najaay yu baax maanaam jaww ji la wër dafa baax te yooyu facteur la yoo xamante ni day développer yaru nit ki pour mu gën a gaaw ci baax benn say mbokk boo leen ziyaara jee baax ngay gis say mbokk buñ la ziyaara see tamit baax ngay gis maanaam entourage bi ci boppam dafa am solo ci nit ki ci wàllu yar moo tax tànn soxna si rek doyut waaye xool fa mu ballu loolu baax la lu am solo la ah beneen sew-sew bi ci nekk mooy léeg-léeg danañ gis ñuy tànn ngir taar comme ni ko yent bi waxee danañ tànn ngir taar danañ tànn ngir alal danañ tànn ayut nag ayut nit ki tànn ku am diine ba noppi am taar loolu ayut loolu ci bénéfice yi la bokk doon naay wax ni alxaafid ibn hajar rahimahullah xadis boobu bi ngi koy sarxa ci fatxul baari dafa wax ni bu nu jiitalee diine ba noppi nee na ki am ku am taar ba mën koo fegal fitna ya taxoon nit di takk soxna nee na loola bénéfice am la te bénéfice nag wax dëgg yàlla kuy commerce buñ la ko tegalee da nga jël muy wax ju am solo te ñor dëgg la nag nit ki bu nga ko tax a jóg waaye bu ko amee jël ndax loola kat daf lay da nga koy jariñoo waat ci àddina ndax bokk na ca njariñe mooy boobu ma junj sànq ndax kat nit ki buy wut te foofu nag xëy na bu doon ci wàllu développé masala bu mel noonu taar moom ci nit ñi dañoo wuute ndax nit mën na nit diw mooy ki taaru keneen ñëw fekk ko taaru wut ci moom moo tax léeg-léeg pour nga définir taar définition boo xamante ni ñëpp ñoo cay dëppoo dana xaw a jafe ndax nit ki ka taaru ci moom kee moom kooku taaruwul ci moom yow li nga jàpp ni lii taaruwul fekk na kee moom loolaa koy bëgg a rey moom moo tax kenn ku ci nekk moom moo xam la taaru ca moom mu tànn ko loola nag nit ki bu buy tànn soxna tamit di wut yaayi doomam laa sakk ni bàyyiwaale ko xel aayut ndax loola tamit dafay dañ koy jariñoo yow waaye xale yi sax dañ koy jariñoo ndax xam ngeen ni doom ni baay mel lay mel ni yaay mel lay mel gis ngeen benn bis yonent bi alayhi salaatu wasalaam te jamonoom Aïcha mooy nettali nee na dañoo toog ñun soxna yonent bi di waxtaan ba mu yàgg ñu seen soxna Fatima di ñëw waaye biñ ko séenee muy ñëw teg teg boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nga ko ca taar ba ca yar ba ca kersa ga ca ca na may dëggee tànk ya buy dox yooyu yëpp maanaam nit daf koy jeexintaloo ci ki ko jur bu ngeen fàttalikoo yusufa alayhi salaam gis ngeen nga xam ne utiya shatra al xusni yusufa waxuma la baayam yaqub waxuma la yaayam waaye même maamam saarata saarata maanaam jamono jamono moom daanaka moom xaw tuuti kon nga ni addina bi buñ daje woon mën nga ni moo ca dàq saarata jigéen la woon joo xam ne li ko suñ borom joxoon ci taar kéemtaanu suñ borom la woon kon loola am na jeexintal ci yusufa alayhi salaatu wassalaam ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni yooya aayut nit ki su fekkente ni jiitalu ko foofu nag ñu bàyyi xel léeg-léeg lenn ci sabab yi dañuy faral di gis ku taaru lool fa ñoom te xamut diine nga ne dama koy dama koy dama koy daawa dama koy dama koy takk après ma daawa ko après jooju boo amut sens moom yow la ñuy daawa yow moo tax yooyu ëpp naa jiital leneen nga gis koo xamante ni dañuy dama koy jël après ma daawa ko far moom ñu daawa ko moom moo tax yooyu ëpp naa dugg yooyu borom xam-xam wala ma tarbiya dañ koy moytandiku lool ndax wóorut ndax léeg-léeg borom xam-xam yi di la nettali ci jamono ju yàgg ja ah ab borom xam-xam boo xam ne da doon dëgër dëgër lu fit ba nii dana takk kenn ci xawaari ji ci jigéen ñi waaye ndaw sa guddi gëm njëkk am ak moom ca la soppi waa ji def ko ci waa xawaari ndax jigéen dafa garaaw lool te bari pexe te rëy leku aayut timit nag maanaam nit ki mu am taar ah mu am alal timit comme ni ñu ko xamee ci xadis bi nga xamee nee naa développé jë taxuma jóg waaye yenn sew sew laa ci bëgg a génne ndax alal kat wax dëgg yàlla dana amal njariñ ku góor ki waxu la nga jóg nag di taamu ci ko am alal waaye boo amoon ko am alal wax dëgg yàlla ku góor ki dana ko jariñoo ñaareel bi njaboot gi danañ ko jariñoo nag wax dëgg yàlla donte nag foofu nag ñaari yëf damaa jaaxal gis nga jigéen xam naa wax wax ji dana xaw a dëgër waaye proverbe olof la waaye dafa wér gis nga jigéen bu rafetee réew bu amee réew loolu olof yi dañ koy wax loolu nag buñ ko waxee néewuñ jigéen ñëpp déedéet waaye nag li ëpp ci pourcentage jigéen ñi gis nga jigéen bu rafetee réew bu amee réew loolu nag bu leen ko déggee ni képp ku taaru rek doo yaru déedéet képp ku am rek doo yaru déedéet ndax xadija boole woon a taar ak kii te bu ñuy wax yar misaal ko jéggi na dayoo waaye li ëpp ci lu ñuy faral di gis alal ak taar day tax jigéen ji yëg boppam day tax jigéen yëg boppam léeg-léeg yëf yi dana toll foo xam ni maanaam jigéen ji ci jëmmi boppam am na benn waay buy nettali benn jigéen joo xam noonu la mel taar bi da koo yéem lool mu xool seetu bi gis ne taar bi jéggi na dayo mu ni xam naa mu yaakaar ni jëkkër ji moom xam nga jigéen bu loolu amee day jàpp ni fi mu nekk nii moom jëkkër ji xalaatu ko wàcc moom mu ne jëkkër ji yow su ma la waxoon fase ma di nga ma fase mu ne ko waaw mu ne ko di nga ma fase mu ne ko mu ne ko wax ma ko mu ne ko fase ma mu ne ko fase naa la te tàng tàng bi waaye ndaw si yëf yi jóge na ko kaw de ndax léeg-léeg dafa am loo xam da nga ciy am mbetteel maanaam fekk góor googu nag moom yàlla def na ko ku ku ku man li muy def nag ku man wetam la nag bu doon sama gars yi xam nga ni fa la ñuy nekk di wokki dox ak di wax ay wax yoo xam ne daanaka amut bopp amut geen waaye doomu aadama mu yëg ni yàlla bu la mayee jigéen taar wala may ko alal rek bu amut yar tuuti wala mu am diine daanaka mën na koo lor donte nag mën naa am njariñ nag kon alal su amee loola nekkut lu aay waaye tamit nag nit ki góorgóorlu ba ki muy jël mu am diine comme ni ma koy waxee moo nekk base ba tey diine jooju nag day sabab wayjur yi def diine jooju ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy seeni doom su fekkente ni askan wi ñu ko jëlee bu baax la. moo tax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci misaal mii nga xam daf ko doon joxe mu misaal mu leer damay wax dara gënu cee jege soxna kii ànd ak àndandoo bu baax mi ngi mel ni kiy jaay parfum. da koy gëttal mbaa mu xeeñal ko mbaa mu may ko mbaa mu lebal kii ànd ak ku bon mi ngi mel ni koy upp taal uude bi dana la xeeñal sa xaar mbaa mu lakk la mbaa mu yàq sa yére te jàpp na ni amul kenn ku gën a jege aji gëm yàlla ji ki nga xamante ni moom mooy soxnaam kon buntu boobu buntu la boo xamante ni bu yaatu la bu mat a bàyyi xel nit ki góorgóorlu ci tànn kan mooy yaayi doomam ma ñëw ci geneen wet gi mooy tànn sa bàyyi doom léeg-léeg dinaay faral di wax mbokk yi nii li ëpp lu nuy faral di gis mooy góor mooy bëgg soxna jug dem tànni waaye jigéen ji pourquoi pas du tànn bàyyi doomam ahankay ahankay am na ndaw su ma fi nettali woon ca jamono ju yàgg ja ci min axbaari nisaa salaf ndaw soosa nga xam ne daa tudd xasanatu xasanatu mooy ku rafet ku jigéen gi xam nga xasan mooy lu rafet ndaw si xasanatu la tudd ñaari xaritam yu jigéen dañoo ñëw ni ko waaw xasanatu yow lu tax ngay célibataire ba tey te nangu woo am jëkkër xasanatu mu ni damaa bëgg a wër gis nga de déggal mu ni damaa bëgg a wër wala ñu wëral ma ba gisal ma góor koo xam ni day julli guddi di ma yee may julli guddi muy jooyal yàlla di may di ma jooyloo muy woor di ma woorloo muy jaamu yàlla di ma jaamuloo yàlla mu ne góor gu ngeen gis mu mel noona de yabal leen ko mu ñëw loolaa di canam bu ngeen ko gisut nag góor gu ngeen dajal muy ñëw nii leen ko jërul muy yegg si ndax duma ko nangu allahu akbar loolu mbokk yi rëy na trop loolu tegtal la bu lay wan ni kon jigéen ña dañ daan tànn bul fàtte ni yaay xadija moo tànn yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaarale ko ci soxna nafisa yonent bi jugul tànn xadija de xadija moo tànn yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay misaal yu bare yoo xam ne boo toppee siyaru salaf daa nga gis jigéen daan tànn wala wayjur tànnal doomam bu góor wala wayjur wu jigéen tànnal doomam ndax it jigéen ji am na sañ-sañu tànnal boppam kim bëgg mu nekk bàyyi doomam comme ni ma leen ko waxee ci dars bi passé koo bëggul sa doom mel ni ci góor ñi wax dëgg yàlla bul nangu sa sa borom kër mel noona ndax al irq da saas comme ni ma ko waxee woon ci dars bee weesu foofu nag am na ci ay sew-sew yu ma ta bàyyi xel ma doog a jàll ci ñaaral tomb bi mooy jigéen ñi léeg-léeg dinañ di faral di ñàkk a tànnal seen bopp ngir yëf yi may bëgg a tudd jigéen li ci fekk góor fekk ko ci góor mën naa jóg dem tànn ñu gàntal ko waaye jigéen dafa jàpp ni bu demoon di tànn tey ñu gàntal ko la koy fekk foofa ci kersa du ko mën a digérer du ko mën a dégg moo tax day sóoraale ñu gàntal ko ba tax na lim bëgg du ko wax déedéet maadaama buntu boobu buntu la bu borom xam-xam yi tijji ci kaw su fekkee jaar na fa lislaam bëgg kooka jigéen ji sañ naa jug tànnal ay doomam yi mu bëgg a am kan mooy nekk seen baay kooku benn la ñaareel bi mooy ñenn ñi jàpp ni jigéen jug mu tànnal boppam ak ak ak nu mu tudd ak wawule la xam wawule lañ ko mën a tuddee xawma rëy bët dijj bët déedéet jigéen su fekkee ju gëm yàlla la te bunt bi lislaam may ko ko mu am ci salaf na jàpp ni maanaam bunt boobu ci boppam lum ci yaakaar ne loola ay gàkk-gàkk la koy jural am na ñu ko gën fuuf ci magi salaf yi ñoo xamante ni ñee doon nañ ko defal seen doom ñi yu góor ñi di ko defal seen doom yu jigéen ñee di ko defal seen bopp comme ni ma ko waxee sànq ñetteel bi mooy am na ñoo xam ne dañoo jàpp ni loolu jigéen ju am kersa du ko def déedéet misaal yii ma joxe laa shakka ne ñooñu ñoo ëpp kersa ñëpp kon jigéen ji tamit am na sañ-sañu tànn ki mu bëgg mu nekk bàyyi doomam ñeenteel bi nag mooy am na ñoo xam dañuy sóoraale bu la waa ji takkee bu ngeen demee tuuti bu ngeen amee lu ngeen séq rek mu ne la hee yow yaa ma tànnoon loolu mooy la kon kay loo loo ko ku lay wax loolu moo lay wane amul diine kon su fekkee yaa ngi sóoraale mu wax loolu rek baal ndax moo lay wane ni kooku amul diine ndax ku am diine ba nga dabu di ko tànn kooku du la wax wax jooju déedéet te loolu nag mi ngi am mi ngi am ila yawmina hada te kenn du ci yedd ku jigéen ku gëm yàlla maadaama la ko tax a jóg baax na te amut yoon wu mu jàdd kon bunt boobu mooy nit ki tànnal doomam yaay ñaareel mooy nit ki tànnal doomam baay noo bëggul sa doom mel ni ngay jigéen wala sa doom mel ni ngay góor jàppal ni bu dul baay ju ni mel foofu nag tànnin wa gis ngeen ko ak misaal yi ñu ci doon joxe ak léeg-léeg jikko yi nga xamante ni da nga koy gis ci góor ba tax doo ko xemem wala jikko yi ngay gis ci jigéen ba tax doo ko xemem façon yooyu jàpp na ci waxtaan yi nga xam ne day jëm ci wàllu sa yeeg nu ñuy tànnee yooyu defe naa leeral lañ ko ci ay yoon a yoon ñaareelu xaaj bi ci bindab tay bi mooy ñaan nag yàlla subhanahu wa taala mbokk yi ñu xam ni nit ki effort bi muy def ak jumtukaay yi may tudd du mooy tax doom kese baax te loolu dinaa ko leeral ci buntab innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha comme yàlla moo ni wa ida saalaka ibadi fa inni qarib sam sama jaam ñi buñ la laajee nee leen man yàlla ku leen jege laa ujibu daawata daai ida daan dinaa wuyu woote aji woo su fekkee man la woo ñaan ma benn ngo ci suutul furqaan sunu borom bi muy tagg ibadu rahman dani walladina bokk na ci melokaani ibadu rahman yi mooy gaa yooye nga xam ni yaquluuna dañuy wax naan rabbana yow sunu borom hab lana min azwajina may ñu ci suñuy soxna wa dhurriyatina ak sunuy njaboot qurrata ayn ayun qurrata ayun njaboot gu sedd bët mooy gu baax gu ragal yàlla gu tege ci siraatal mustaqim waj'alna lil muttaqina imama tayit nga def ñu ci ñi ragal yàlla ñu nekk ca njiit loolu mbokk yi ab tegtal la bu lay wan ni kon dafa jaadu nit ki muy ñaan borom bi subhanahu wa taala wërsëgal ko soxnaam baax njabootam baax bu amagul soxna soxnaam baax bu amagul doom njabootam baax bu ko amee ba noppi mu kon ne di ko ñaan ndax daanaka bisab koor la fii ak dëgg jotut fii ak faatoogoo njaboot gaa ngi fi dëngte ak jàdd yoon weesa gut ngay ñaan yàlla jubbanti leen waaye tey ñaan yàlla musal leen ci mépp ndog déglul ci suratul mariam yent yàlla zakariya alayhi salaam lu mu waxoon dani fa habli min ladunka waliya يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا من يوس البرام هب لي يالنا مماي من لدنك في وليا جامكت يالا بير بوي ماي دوم يوس البرام ما ngi lay décrire façon doom yi ma bëgg nga may ma leen mooy may ma doom joo xam ni wàll yu suñ borom lay doon allahu akbar jaamukat yàlla lay doon nga xam ni yarisu nii moo may doon doon doonuk alal waaye doonuk nubu wala wa yarisu min aali yaqub loolu mooy tegtal bi ndax aali yaqub ay yonente la te inna maasha al anbiya la nuuras yonente yi kenn du leen doon waaye wajaaluhu rabbi radiya doom ji may may maa ngi lay ñaan yàlla nga def ko mu nekkum gërëm loolu ab ñaan la boo xam ne mi ngi ci alquran te yonte yàlla zakariya moom moo ko def soo demee ci aali imran dafay wax ne rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan innaka samiu duaa yow sunu borom may ma njaboot goo xam ne njaboot gu teey lañ gu sedd xol ju gu yaru gu am ngëm yàlla gu topp sunu borom ndax yow sunu borom yaay ko nga xam ne da ngay dégg ki la ñaan allahu akbar mbokk yi xoolal yonent yàlla alayhim salaatu wasalaam ñoom ñi gën a yey ci am doom ju baax waaye teewut ñi ngi ñaan suñu borom maanaam ñi ngi fàkk terrain bi ñoom pour suñu borom war sëgal leen njaboot yu barkeel xoolal ibrahima alayhi salaam ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سورة البقرة يا سورة مرام دف نيو منك سما دوم جي إسماعيل نيو نك نيو أي جلد يلا توب suñuy njaboot yàlla nañ ci meññalee génne ci ay njaboot yoo xam ni aw xeet la ñuy doon bu gëm yàlla gis nga de ibrahima alayhi salaam soo demee ci suratu safat rabbi hab li min alsalihin yow yàlla may ma doom waaye dama bëgg nga tànnal ma ci doom yu baax yi nag may ma doom ju baax allahu akbar mbokk yi seetlu ngeen ab yonent ak ni mu fooree ci suñ borom ak kuy yar nim la dàqee yar kuy ñaan nim la gënee mën a nangu ñaan ku ak njabootam di dëng nim la ko gën a soree moom ab yonent waaye nag jumtukaay yi ñu doon jëfandikoo bokk na ci mooy ñaan suñu borom soo demee ci suut ibrahim muy saar wi ko suñu borom tuddee rabbi jaalni muqi rabbi jaalni muqima alsalati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal duaa yow suñu borom def ma ma nekk koo xam ni damay taxawal julli ci waxtu wu ne te it suma njaboot ñu bokk ci ñuy taxawal julli ndax yàlla yow maa ngi yaakaar nga nangu sama ñaan gi ci wàllu ñaan sa njaboot bu ñu dëng ibrahima ni wajnubni wa baniya an na'buda al asnam ci surat ibrahim yow yàlla yàlla nag ma musal man ak suma njaboot ñuy bokk ci jaamukati xërëm yi da nga yaakaar ni fi mu nekk nii sa doom góorgóorlu xam sunna mel ni nga mel da nga yaakaar ni loolu ay effort yi ngay def ni ak yàpp di da nga koy ñaan yàlla li nga bëgg loolu ngay ñaan yàlla gis ngeen ki suñu borom di nettali ci aji gëm yàlla ci suñu borom di nettali suutul ahqaaf رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي يوصل برام يلا ما ينكيوال بما من خم دي سنت خيوال ينغا خمني يانغ ما كوي دفل دفل كو سمي ويجر ba ma man di def lu baax loo xam da nga koy gërëm maa ngi lay ñaan yow sunu borom yàlla na nga jubbanti saak njaboot gis nga de mbokk yi ñaan yooyu mi ngi bàyyikoo ci ay yonent alayhim salaatu wasalaam kon ñaan yooyu firnde la bu lay wan ni ko ndeke nit ki faw muy sonn di ñaan yàlla mu wërsëgal ko njaboot gu baax njaboot gu barkeel gis nga salafu saaleh boo jàngee seen dund buntu boobu dañ koo dundoon lool ku mel ni ahmad ibn hanbal ku mel ni imaamu daaril hijra ku mel ni imaamul awzaa'i ñoom aimma yi boo seetloo seen dund ñu doon góorgóorlu lañ ci wàllu tànn bal sax ci la ko jiitu ci saxaaba ya ci di ñaan yàlla ba ci jigéen ñi sax da ngay gis ci seeru salaf ay jigéen yoo xam ni dañuy dem aji dañuy dem aji dem ba langaamu ci seeru kaaba gi ah nga xam ni barab la bu ñuy yaakaar ni ku fa ñaan suñu borom nangul la ko ci barab yi nangu ñaan yi la bokk ñu taxaw ci barab boobu di ñaan yàlla subhanahu wa ta'ala wërsëgal leen doom yu baax gis nga doomu aadama sonn gi muy sonn ci préparer njabootam ñaan googu da koy topp ba topp ay sëtëm ay sëtëm kenn ci magi salaf yi dañ dañ koo laaj waaye dañoo gis nga bari naafila lool muy damay yokk sama naafila yi ngir ngir sa ak njaboot nekk ay jaamukati yàlla damay yokk saay naafila ngir saag njaboot ñekk jaamukatu yàlla borom xam-xam yi dañ ne nit ki su góorgóorloo di ñaan yàlla njaboot gu tege ci yoon ba pare muy jaamu yàlla ca loola yàlla mën na koo fayee njaboot goo xamante ni maanaam dañuy tege ci suratul mustaqim comme ni nga xamante ni noonu la doon dundee loolu nag su dee yonent yàlla yi alayhim salaatu wasalaam yooyu ña ci jiitu salafu saaleh ulama u yaag ña nga xamante ni boo seetloo ñu bare bare bare boo gisee seeni tarjama dañuy faral di ñaanal seeni njaboot nag dañuy ñaanal seen i njaboot borom xam-xam yu bare bare bari yooyu jàng seen dund ci wàllu siira moo xam ñoo xamante ni xëy na yàggun sax lool léeg-léeg nga gis koo xamante dañuy sonn lool ci di ñaanal yàlla seenu njaboot ci barab yi ñuy yaakaaree nangu ñaan waaye foofu dafa am benn sew-sew bu ma ci bàyyi xel mooy dama seetlu ni gis nga borom bi subhanahu wa taala day faral di nattoo nitam soxna su dëng baa doom du dëng kéemtaan gu réy ngoog nag gis nga ànd ak ñaan yépp sunu borom dafa faral di nattoo borom xam-xam yi ak nit yu baax yi soxna su dëng baa doom du dëng léeg-léeg nga jàng dund benn borom xam-xam bu mag ñu laaj ko ci dundam lu ko gën a metti buy tànn soxnaam su dëng lay doon wala doomam du dëng loolu gisees na ko maraat wa karaat loolu nag léeg-léeg nit ki amul ak seetlu day yaakaar ni ak tapp suyram la ak sàgganam la fekk déedéet léeg-léeg mën naa nekk sàggante waaye léeg-léeg mu nekk nattub suñ borom yépp nag nattu lay doon rawatina koo xamante ni ku yàlla defal la mu baax mu farlu wallaay léeg-léeg nga gis ku yàlla baaxal lool waaye nga gis ci njabootam koo xam ni accam accam rek ngay wax loolu nag dinaa ko leeral léegi ci kanam ñu xam ni maanaam nekkut lu nuy faral di yeddee nit ki chaque jour waaye tey ci baax na lool ñu ànd xam ni nit ki du mooy gindi malgré que tànnal nga sa doom yaay ànd ak yaa ngi ñaan sunu boroom waaye yëgal ni du yaay gindi yàlla mooy gindi waate man ngaa def effort yépp ba pare sa doom ñëw dëng borom bi subhanahu wa taala day wax ci suratul a'raf man yahdi llahu fahuwa almuhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun ku yàlla gindi kooku rek mooy ku gindee ku suñ borom bàyyeeg boppam ba mu sànq kooku moom mënoo def benn effort ba mu gindee kooku day perte soo demee surtu Faatir فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات sunu borom mu ni yàlla de mooy sànq ku ko soob mooy gindi ku ko soob jërul ngay sacrifié wu sa bopp nag ngir bëgg nit ñi nañ gindeeku déedéet bul sacrifié sa bopp defal effort rek nañ gindeeku waaye bul sacrifié mukk sa bopp parce que mënoo gindi ku yàlla gindiwu surtout sajda sunu borom ni walaw shi'na la atayna kulla nafsin hudaha bu doon damaa soob man yàlla ku ma neex ñépp ku ma neex dama koy gindi du dëgg surtout yunus sunu borom ni ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا gis nga mu neexoon yàlla waa kaw suuf kenn du dëng ñéppay baax gis nga de surtu nuur sunu borom ni yahdi allahu li nuurihi man yasha leer ak sunu borom gi yàllaay tànn ñi ko soob mu gindee leen ko gis nga ak yeneen i aaya yoo xam ne bari na lool ci alquran mbokk yi di wane ni yàlla mooy gindi gis ngeen yonent yàlla isa ca suurtu maryam defe na tafsiroon nañ ko waaye bu ma jaaratoon ci aaya ji nga génnewaat ci ay njàngale yu am solo ba muy wax inni abdullahi ataniya alkitaba wa jaalani nabiya وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا آية جي تفسير ننكو waaye mbokk yi boo xoolaatee aaya ji bu baax ci wàllu seetlu inni abdullahi mu ne aataani moo ma jox atani alkitab ak lan mu ni wajaalani moo ma def nabiyan ak ban mu ni wajaalani moo ma defaat tamit mubarakan aynama kunt ak ban mu ni wa awsani bisala wa zakat ba dumtu hayyan ha ak ban mu ni walam yaj'alni jabbaran shaqiya wa barran bi walidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya walam yaj'al muy teyit nag lim ma defal ci lu baax mënoon na maa def ma def safaan ba gis nga de borom xam-xam dañuy wax ne idaafaat yi yépp waa isa da koo jëmale ci suñu borom yàlla moo ma nangam moo ma nangam moo ma def ma nekk koo xamante ni ataani yal kitaab moo ma jox téere bi kon du maa ko jël moo ma def ab yonent du maa def sama bopp yonent moo ma def ma barkeel du moom moo ma ko du maa ko def sama bopp moo ma digal julli ak azaka azaka fii ak maa ngi dund def ma ma nekk ku baaxe samay way jur gis nga ci yëpp ay xeeti yëpp la yoo xam ne nit ki du caagee ci effort boppam la koy defee teyit nag bu safaan ñëwee mu ne walam yajal ni jabbaaran shaqiya def ma ma nekk koo xamante ni kuy mbër mbërlu la koo xam ni kuy xotti ay orma lay doon déedéet moo tax ci suratul muminun borom bi wax wax ju am solo wa jaalna bna maryama wa ummahu ayatan wa aawaynahuma وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين kon rek Isa nekk gi mu nekkoon kéemaanu su borom yàlla moo ko ko def loolu ayat yooyu mbokk yi liñ ci jublu woon ci jàng gi ngir ñu xam ko mooy yàlla mooy gindi nit ki mu nekk ab jaamukatu suñu borom amma yonente yi alayhimu salaatu wasalaam li ñuy baax baax baax mbokk yi du ñoom ñoo mën a gindi seen bopp waxuma la ak seen nga bopp defe naa yéen a ngi fàttaliku ban yonent noox alayhi salaam nga xam ni wallahi mbokk yi booy booy wër yarkat ba daj noox maanaam jàpp nga waaja mbokk yi xool leen noox ak nim mënee yar ak nim guddee fan nga xam ni gudd fan gi rek ay facteur la yu waral possibilité nga am ay possibilité ak i jumtukaay ak i expérience ak xeeti yëpp yoo xam man nga caa jaar boo ëffee fii tàkkoon nga ëff fa ca des waaye nuux gis ngeen li ko yàlla nafta woon yaa bu na yërkab maana wala takun maa alkafirin nuux yàlla da ko wër sëgaloon doom ju dëgg keroog ba ñuy yéeg ca gaal ga ee yow sama doom yéegal ci kaw gaal gi bul bokk ci yéefar yi allahu akbar mbokk yi kan ngeen yaakaar moo tax moo tax wax naa leen sànq ni bul gis nit mu baax yàlla nattoo ko njaboot gu dëng rek nga dal ci kawam fekk déedéet nattu yàlla moo ñëw xanaa lii kenn du wax noox dafa sàgganoon ci yar njabootam kenn du wax noox mënul woon a yar waaye xoolal doom ji ban jàngalekat moo gën a mën a jotal ay wax noox alayhi salaam kan moo gën a mën a ñaan noox kan moo gën a mën a yar noox kan moo gën a bëgg lu baax noox kan moo ko gën a bëgg njaboot moo tax yooyu boo toogee di ko xalaat wallahi bu dee am nga tuuti ci basira da ngay tiit ci sa bopp yaag sa njaboot yow gis nga lii mbokk yi ku koy seetlu da ngay tiit yow ci sa doomi bopp yow sa doom ji nga jur da ngay tiit yow xoolal noox di yonent yàlla bokk ci ullu azmi ci tànneefi tànneef ya cinq premières ya ya yàlla tànnoon def leen ulul azmi noox ca la bokk yàlla gërëm ko allahu akbar waaye yii yëpp teewul rek yàlla nattoo na ko doom ju dëng doom ji ne ko sa aawi ila jabalin yaasimuni min alma ah bàyyi daal jàppal ci li nga jàpp ma jàpp ci li ma jàpp dinaa yéeg ci kaw montagne bi moo mooy fegal ndox mi noox ni ko laa aasima al yawma min amri llahi illa man rahim mu ndax doom xamoo ni tey amul kenn koo xam ni mën naa mucc lu dul yàlla moo ko muccal te da koo yërëm doom ji wiccax bàyyi bi loxo wa xaala baynahuma almawju fa kaana min almugraqin fa wax jee takkarnaasee rek noox di wax pareegul rek benn duus ci duusi géej gi wala duus ndox mi ni pap dox seen diggante nga xam ne dafa yëkkati ko ba ca kaw taslaangu ga fa kaana min almugraqin doom ji àjjee ku ca kaw montagne boobu nekkoon rek xalangu ci biir ndox mi bàyyi ji di gis allahu akbar te te kéemaan gi mooy léeg-léeg sa doom bon sax nga mën kaa muñ xam nga am na ñoo xam ne seen doom dafa bon ñu mën koo muñ ndax wàññiwu leen dara donte nag loolu du lu ñuy muñ ndax gënoo mën a muñ nu wax tey bu dee lu baax nga bëgg ba tax ngay da ngay gedd sa doom ji noox geddul woon noox dem na ba ni ko bul def nangam mu dëgër bopp def ko te taxu koo découragé foofu maa ngi ci ci wàllu tarbiya lañ nekk léeg-léeg nga am njaboot nga jubbanti jubbanti ci yoon nga daal di koy bàyyi mu dem loolu loolu pertement la wallahi pertement la yow ki nga doon yor ci kër gi même bu fekkente ni cinquante pour cent nga am ci moom yaa ngi jàpp ci kii boo ko dàqee mu génn mu am cent pour cent ci ci ci cànkute nag wéq na doom ji waaye bañu ko ab yarkat du gaaw a gett da ngay dem ba xam ni kii mënatoo koo gindeeti wala nga foog ko ci yaqin ju wér wa illaa nga gis ay ma symptôme ay mandargaam tayit nag fekk ñaan nga yàlla tayit bañ nga mu yàq ñi fi nekk nga seet nga leen noo def waaye gis nga gedd ak sànni sa njaboot ak bu mën na may tiim yàlla naa néeg bul dugg di sama kër ak déedéet mbokk yi ndax su fekkee kéefër gi nga bañ ak mbonte gi mu nekk nuux doomam mel na ni te gedd ko daawakat mbokk yi yarkat du gaaw a gedd xoolal nuux alayhi salaam doom jaa ngay kallaw kallawi te la ko tax di kallaw kallawi mooy ñàkk a topp ndigalal baayam di ndigalal yàlla découragé ba léegi mu yëkkati ay loxoom rabbi yow sama borom inna bni sama doom jii di la min ahli ci saa njaboot la bokk wa inna waadaka alxaq yow yàlla xam naa ne doo wax di waxantu loo wax di nga ko def wa anta ahkamul xaakimin te it àttekat yi yaa ci gën a jub gën caa maan ndax sab àtte rek kay jub te maan ndeysaan xoolal bàyyi ñu mu yërëmtaloo mbokk yi waaye xoolal yàlla moo moom nuux moo moom doom ji moo xam li gën moo xam kii gindee ko ki dul gindee ko mu ne ko yaa noox eey noox innahu laysa min ahlik ki bokkul ci sa njuboot allahu akbar te noox ko jur ko laysa min ahlik ki bokkul ci sa njaboot innahu amalun gayru saalih kii doom ju tekkiwul dara la kii baaxut amalun gayru saalih foofu maa ngi fi def benn entre parenthèse bayna qawsayn noox lu ngeen xamoon ci soxnaam ak ndëngte ak ndëngte gis nga soxna maa ngi dellu soo ci tomb bu njëkk bi gis nga soxna boo ko tànnul na nga ko war a tànnee jeexintal yi muy def ci doom jeexintal yu garaaw la xoolal yàlla moo dogal dogal bi moo dogal dogal bi de waaye nee na ko hey kii njur mu baaxut la ndax non dafa échegoon te ba mu doon tànn déedéet ko nattu yàlla tamit moo ñëw ba léegi waaye nattu yàlla bi nag fii la ko yàlla jaarale loolu lu ma ta bàyyi xel innahu amalun gayru saalih kii njur mu baaxut la allahu akbar njur bu baaxut la sunu borom bu ni ko fala tasal ni ma laysa laka bihi ilm yaa ngi may ñaan naa ko gindi yow da ngaa xam bu ma ko gindee fan lay mujj xam nga lu cay tox loo amatul xam-xam bul ma ko laaj inni aiduka an takuna min aljahilin maa ngi lay waaram li- maa ngi lay delloo si waat nag nga bañ a bokk ci ja- joha- johaali kat gis nga de bul bokk ci jaahiliin yi ab jaahil mooy koo xam ni la muy def xamul mu jëntal ko ndax bu ko xamoon du ko def ah gis nga lu bëgg-bëgg doom ñëw lu sentiment taxaw taxaw bu ndigale bi yàlla taxawee rek da nga war a soppeeku nag rabbi nu wax ni rabbi yow sama borom inni audu bika an asalaka ma laysa li bihi alim maa ngi lay muslu yow yàlla nga musal ma ci ma di la ñaan sax loo xam ni aw ma ca xam-xam wa in laa taxafir li te sax boo baalut li ma jot a def wa tara xam nii nga yërëm ma akul min alxaasir damay perte ànd ak doom ji xool rikkili na rikkil subhanallah diggante boo xam ne matut ay minute mu rikkili ci bu gaaw lu ko waral mooy sentiment yeeg cofeel yeeg bëgg doom yi bu ndigalal yàlla taxawee dootoo ko yëgati yow gis nga mbokk yi kon loolu moo lay wan ne ab yonent bu doon gindi dana gindi nu wax dana gindi soxnaam mbaa mu gindi daraba allahu matala alladina kafaru imraata nuuxi wa imraata luut beneen bi ci des qisam ibrahim te ay marraat jaar nañ ci gis ngeen ko ca ba mu gee bëggee gindi bàyyam fu ne jaar na fa wax ju tegg ni ju ne yaa abati yaa abati yaa abati yaa abati ay bàyyi sama bàyyi sama tee nga xalaat li ngay def yaa abati yaa abati yaa abati ba muy ñeenti yoon ndeysaan nga xam ni baat yërëmtalu la ibrahima doon wax waaye fa mu mujjee mooy sa astaghfiru laka rabbi xam naa ne mënuma ci yow dara waaye dinaa la baalul yàlla yàlla la yàlla jéggal kon loolu ndeke nit ki du caage ni moom mu mën a gindi yonente bi alayhi salatu wasalaam yéen a ngi fàttaliku ndeysaan bàyyam abu talib dafa toll ci sukuraat te mbokk yi xool leen abu talib ak fi mu tolloon yonente bi sallallahu alayhi wasallam nga xam ne amul koo xam ni ak gindeekoom yittewoo na yonen yitteel na yonen sa tam ba mel ne abu talib maanaam dafa am nit dalay dalay féete foo xam ne da nga koy yéene yëf yi la ndax Abu Talib dafa féete woon man damay faral di wax léeg-léeg man wallahi xisab Abu Talib man su ma koy wax damay am problème parce que problème bi may am mooy Abu Talib suñ la waxee lim defal yonent bi dëgg dëgg da nga koy yéene lislaam maanaam malgré que yéefar la dee na ci kufru waaye du tee ba tey da nga ko doon da nga koy yéene sa gis nga ci ngay daal di yëgee sentiment yi yonent bi daal ndax yow buñ lay wax Abu Talib xeetu xeetu embargo yi doon embargo yonent bi ak lor yi nga xam ni musiba ju mës a ñëw Abu Talib day pare pour na faatu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba way ko ay way ahlu siyar boo demee am na bayit yu gudd yoo xam ni ni mu ñoree te yërëmtalu mu di ko way di wane ni yonent bi la faral ku ko nar a faat da nga ko faat ànd ak moom xoolal yooyu bu ñu la ko waxee sa yaram day daw da nga ko yéene njub yonent bi tiim ko alayhi salaatu wasalaam fekk kàngami yéefar yi ñu ngi ko tiim ñu bon ñoom Abu Jahlin ñoom Aqbaat ñeneen subhanallah yonent bi naa ko benn baat laa soxla ci waxal laa ilaha illallah rek ma am aw lay pour plaider la ci kanam suñu borom abu talib julli wut wóor tëmut asaka umra ji wut ajut màkka defut lenn waxal laa ilaha illallah rek nga may ma occasion pour ma mën koo sukkandiku pour layale la ko ci kanamu yàlla mbokk yi loolu yomb na trop waaye nag may yahdihi llah fa huwa almuhtad gis nga bu la yàlla gindiwut même la ilaha illallah ci boppam day toll ni montagne Uhud te montagne Uhud mën na ko bu ma ba mu ko puus du ngeen fàttali ko ci darsa bu ñu ko defoon ci suul xaatima benn waaye dañ ne ko waxal la ilaha illallah ba sonn mu siggi xool ni wallahi xam naa ni li ngeen may wax xam naa li ngeen bëgg waaye man maa mënta wax baat bi maa mënta wax baat bi moo tax gis nga mbir yi tawfiq la de tawfiq la de doom ju gindee ko ku baax ku nag yonent bi dem ba Abu Talib toll ci xar-xari ndee muy insister bay jooy sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko neexul ba neexul daal waaye inni ala millati abdul muttalib man daal rus naa ma di la topp ñu naan moom daal moom daal dinaa la défendre waaye daal rus naa ñu naan topp nag bàyyi na diine maanaam topp ko rek mu faatu ca loolu yonent bi tooy jooy ba ab sikkimam tooy ne ko dinaa la jéggalul yàlla fi yëg yàlla terewuma ma di la jéggalu ba sunu borom ne ko nag ah déedéet ab yi musirik nag kenn du ko jéggalul yàlla xoolal waxal laa ilaha illallah yaakaar ngeen ni kon bu amul hidaaya nit ki mën ko jox doomam wala baayam kon du ko jox yonent bi du ko jox ahan kay waaye innaka la tahdi man ahbabt walakin allah yahdi man yasha foofu nag ma defaat bayna qawsayni bu mu tax daawakat bi découragé gis nga yow mi ñaanal sa njaboot bul jàpp ni yàlla mu kum gindiwul doo gindee ku jëru may def benn effort déedéet yow yàlla li muy def ci sabab yi la koy jaarale de ah soxna mariam ba mu tolloo ca diggante xam ngeen ni yàlla lam ko defal ci ay kiimaan isa mu wax nekk ci liir tey wax wax yoo xam ne ponkal yi sax xamuñu ko kooka mënta jékki-jékki rek indil ko ab tàndarma mu daal di nekk ci kanam mu lekk ko mu ne ahan kay waaye suñu doon ko huzzi ilayki jugal jugal mu jug mu ne ko gësamal garab gi mu gësam affaire yi wadd mu ne ko faral lekk boo paree wasra bi demal ca dex bi nga naan mu ne yàlla mënoon na ko koo defal benn borom xam-xam mu ni lakin kullu shay'in ma'a sababi lu yàlla joxe da koy jaarale ci sababu kon ndeke bul ni yàlla mooy gindiwaate rek kon naa bàyyi bu gindee baax na bu gindiwul déedéet effort yi ngay def sabab lay doon ci yàlla gindi ndax lu nekk suñu borom am na ci lu mu koy jaarale ànd ak nag nit mën naa baax ba bëgg a dee ndeysaan doomam dëng nit bon lool doomam baax wolof yi nee nañ buy dina jur dég dég dana jur buy loolu léeg-léeg mu am ñaari misaal laay joxe ba ñett benn bi maa ngi koy joxe ci Moussa alayhi salaam Moussa mbokk yi fu mu yaroo kër firaaw déedéet bu la kër firaaw na kese da nga naan kër fàqman bu ñuy wax firaaw na la yaroo di reykatub nit di ab agresseur ah mooy yàlla ma façon xamadi goo xam rek firaaw na def na xam nga ne ana rabbukumul aala fa la xamadi mën a yem ana rabbukumul aala fa la xamadi mën a yem wax xoolal kii fi mu yaroo la ca nekk ci ay xeeti yàqute yëpp est-ce que da koo tax a yàqu déedéet mooy yàlla ci boppam bu namee gindi nit même bu nekkee ci barab bu ñu yàqoo suñu borom dana ko gindi bul ni ma ab yonent la kese moo tax déet ndax yàlla loolu defalu ko ay yonent kese Moussa Samiri fu mu yaroo ah kër Moussa kër Moussa ci waa kër Moussa ñu la bokkoon de waaye xool ko rek ni mu saay saayee rek nga xam ni moom moo defaroon yëkk wa ah ba yëkk way nañ ñi fa axraja lahum ajlan jasadan lahu xuwaar ba Moussa mere ko laaj ko lam def mu wax ko mu ne ko fay na la ko fil xayat laami an an taqula la misaas yow dinaa la ñaanal yàlla sa dund gi li ci des moom di nga xal ko ba yàqu yaxeet yàlla da ko natt woon yaram wi yàqu yaxeet def ay futtantaan ak i tupp nga xam ni yow yow doo ko bëgg a sax a jege te moom boo ko jege la misaas bul ma jege de eh bul ma jege de moom mooy wax nit ñi loolu te nit ñi sax kenn bëgg koo jege fa xoolal loolu rek loolu laay wax mbokk yi ba ñu leen man de bu ma léeg kaar yi ci biir lamisaas man de kaar boo gis ñu bind ci lamisaas du ma ci dugg man ah yow kaar oto boo xamante ni sa way te lii seen même su pexe da ngay gis ñu bind lamisaasa bu ñu nee lamisaasa rek yow bu ca dugg yow ah yow oto boo xam ne da ngay gis ne ne bul ma laal bu ko laal yaa xi demal loolu tafaawul la de gàtt nga yonent bi da ko doon def sallallahu alayhi wa sallam moom la bu ma laal bu ko laal yaa xi demal feneen gis nga yaram bi mel noo xam ne yow bëggoo ko sax a xool boo ko jëmu ne lamisaasa bu ma jege de bu ma jege bu ma laal yow bëggoo koo laal àll bi ne mun la bu ma laal kay mi ngi lay dimbali gis nga te xoolal kooku mi ngi yaroo ci kër Moussa beneen bi mooy Youssouf alayhi salaam subhaana rabbina al aala mbokk yi xoolal Youssouf ci wàllu ay wayjur ak fi mu juddoo war a mën a baax waaye boo ñëwee ci fi mu yaroo Youssouf fan la yaroo ci ñaari barab yoo xam ni bu ci gën a doy waar sa morom. bee barabu mbewteg cànkute la bii barabu mbanditismeeg yàqute la yéen biir pale yaakaar ngeen nit mën na faa amee yaru diine biir kaso moom jërut ma koy laaj xanaa yaakaar xoolal ñaari barab yi gën a garaaw kaso nga xam ni sulaar yi gën a yàqu raykati nit yéeg bandi yéeg ñeeg subhanallah yusuf nekk ci seen biir te teewul hidaaya googu am ko bul ni ma yonente kese la parce que am nañu yaroo ci barab yu mel noonu suñu borom defal leen hidaaya xoola biir pale nga xam ni sa waay daanaka doo sol yére lislaam doo sol yére yu julli yére yére yére yére yu baax ah naanum sàngara si ni kasar ca biir jigéen ñaag xadis wala xaraj boo ñëwee biir kaso moom daanaka luy xeeti yàquteg mbonte gis nga yusufa alayhi salaam bi mu duggee biir kaso fekk na fa ay nit yoo xam ni sa waay ba ñuy dugg kaso yusuf sax juddoogul yusuf fekk na fay paa yoo xam ne bi muy bi ñuy dugg kaso ñoom yusuf sax juddoogul alayhi salaatu wasalaam waaye ci tawfiqi suñu borom ànd ak yooyu yépp yàlla sàmmal na ko foofu nag dafa am benn bay na xaw seeni bu may defaat entre parenthèse mooy gis nga wayjur di ñaan yàlla njaboot yàlla dénk yàlla njabootam fii dafay feeñ gis nga bañ ba mu ñaanee ba am njaboot gu baax moom yàqu ba yusuf réere lu mu wax fallahu xayrun xaafizan dénk naa ko yàlla allahu akbar ak am solo dénk sa njaboot gi yàlla fallahu xayrun xaafisan wa huwa arhamu rahimin parce que amoon na confiance ci ni yàlla dana ko sàmmali gis nga yaqub alayhi salaam am na ay mandarga yu yu ko xam nga yaqub digganteem ak yusuf balaa ma koy gisaat am na borom xam-xam yoo xam ne àgg na fanweeri at la hawla wala quwwata illa billah booba ngone su ndaw la bi muy gisaat yusuf fekk na yusuf daanaka commencé naa bee jaaw nekk na xal daanaka demi pas ah gis nga musul dañ bi am ni yusuf dana dellu si léegi foofu borom xam-xam dañoo xam ne am na sabab yu bari yu ko ko doon wan sabab ya bokk na ci mooy dimbali ko gim dimbali koo yàlla subhanahu wa taala ñaareel bi benn bis dafa am benn waay bu mës a ñëw ci Égypte gis Yusuf alayhi salaam Yusuf daal di wax ak moom laaj ko fan la dëkk mu nettali ko fa mu dëkk mu xam ni ca dëkk ab baayam la mu ni ko boo demee nga wax saa baay ni ko boo demee nga wax góor googa nekk ca Kanaan mu Yaquba ne ko am na benn prisonnier de guerre boo xam ne mi ngi yóbbante ci yow di sàkku ñaan ci yow wax ko ay wax yoo xam ni yooya bi ko yaquba xoolaatee ay mandarga yu bokk ci yim doon sukkandiku donte nag foofu borom xam-xam dañuy wax foofu ay wax yoo xam ne amu ca ay naan malaakal mawte da ko dikkal naa ko rey naa ñi ma rey njëkk waaye gisuma ci ko tudd yusuf ak yooyu ay xissa wéru yooyu wéru waaye daal amoon na ay mandarga yu sukkandiku wa wane ni yusuf mi ngi dund gis ngeen bañ déparé ak ma lu wax inni la ajud riha yusuf man de xetu yusuf ak may xëy xam naa di ngeen maam dof na nag waaye baax na lawla antu fanni dun mooy xam naa di ngeen ni maam dof na waaye baax na te fekk xet gaa ngi koy xeeñ ay kilomètre mi ngi mel ni Sénégal ba Dakar ba Tamba xet bi xet xetu mbubum Yuusuf di ko xeeñ gis nga kon nit ki mu dénk yàlla njabootam loola bokk na ci mbir yi nga xamante ni sabab la ci yàlla subhanahu wa taala giddil la sa njaboot beneen bi ci topp ci misaal yi may joxe mooy bi nekk ci suuratul kahfi wa amal jidaaru fa kaana li gulaamayni yatimayni fi lmadina lu ci topp wa kaana taxtahu kanzun lahuma lu ci topp wa kaana abuhuma saaliha boobu laa soxla gis nga doomu aadama soo góorgóorloo ba baax tey def effort di ñaan yàlla sa njaboot yàlla moo lay sàmmal sa njaboot walaw baada mamaati même boo faatoo même boo fi jóge woon loolu nag tegtale alquran la am Abdullah ibn Omar bi mu tolloo ci sukuraat ñu ne ko waaw yow buur nga loo fi bàyyee sa njaboot xanaa doo bàyyi baytul maal mu bari alal nii yow kenn du la doon mu ni wóol leen ba xale yu ñëw waaye kër gi ñëpp ñëw tiim ko mu ni leen ñu ngi may laaj lan laa leen fi bàyyil su fekkee ñu gëm yàlla ngeen te baax in takunu saalihin bu ngeen baaxee fallahu yatawalla saalihin du loolu alxam wax yàlla ne na maa lay maa yor ñu baax ñi su ngeen baaxul nag mu ne ñaanuma yàlla bàyyi fi alal joo xam ne ñu baaxul laa ko fi tegal wasalaam Omar ibn Abdul Aziz boobu Omar ibn Abdul Aziz moo waxoon lu mel noonu beneen bi ci des mooy borom xam-xam yi tafsir yi dañuy wax ni ñaari xale yooyu seen baay dafa nekkoon jaamukatu yàlla bu mag boo xam ni kéemtaanu sunu borom la woon ci jaamu yàlla di ci yor ak njobootam bi mu demee bay faatu mu jël alal ji mu ni yàlla alal jii dey su ma ko jëlee jox ko nit ñi amaan nañu lekk ko. te saay doom ay tuut tànk lañ màggagul alal ji yàlla dénk naa la ko maa ngi koy dugal ci ron tabax bii dénk la ko yow yàlla subhanallah alazim moo koy xoolal loolu mu daal di gas fondement daal di dugal alal ji ci ron fondement bi tabax miir ba ni yàlla dénk naa la affaire bu ku koy feeñal yàlla yàlla mën ko dénk xadir daa ñëw ci dëkk bi ni leen may leen ma ma lekk waa dëkk bi ni ko amul lu lekk dañun may lay ma ma naan ñu ni ko amul lu ñuy maye luy naan de xadar dem toog fële ndeysaan ba mu yàgg rek mu geesu seen miir buy waate daan mu ne Moussa jógañ dem jubbanti miir ba Moussa ni ko jubbanti man kay jubbanti ma yow ñu soxor ñii nga ñaan leen ndox mi bañ nga ñaan leen lekk kii ñii kay bu leen jubbantil seen miir Moussa ni ko xadar ni ko yow néew ma la woon lu may defati génn ci sa yoon lu may mu ne ko ah maa ngi jéggalu de dama kaa fàtte woon xadir daal di dem jubbanti miir ba sunu borom mu ni wa amal jidaaru lii nga xam ni moom mooy miir bi mu ni fa kaana li gulaamayni yatimayni fal madina ñaari xale yi jirim ñoo ko moomoon wa kaana abuhuma saaliha seen bàyyi ku baax la maanaam baax googu borom xam-xam yi ñu ni moo tax borom bi soo tala sàmmal ko ko wa kaana taxtahu kanzun wa kaana abuhuma saliha yàlla sàmmal leen ko ndax miir ba su gis nga miir bi dëngoon di waaj a daanu borom xam-xam ñu ne su daanu woon rek alal ja mën naa sulleeku te bu sulleekoo lam doon bañ daal di génn defe naa yéen a ngi fàttali ko xissab waa yonent bi kam doon nettali ki leboon ab bor ci gàttal bis ba jot mu ne ko bis sàngam dinaa la fay bis ba jot amul gaal gu mu jógee mu jël bantu xat doon bantu ñambi suukar xoos ko lit ko ba mu ci digg bi mu tëmbal alal ji ci biir ni yàlla keroog yow laa defoon seede yow laa defoon témoin te bëgg na maa dem awma gaal gu ma dem alal jàngoo daal di koy sànni ci dex gi alal ji dem ba yegg ca borom fekk borom toog na xaar ba découragé di ñibbi seen bant buy tëllëx tëllëxee ñëw mu ni xaarama xaar ko ndax bii di jënd ak matt la li mu ko dajjee fekk ci alal ja fallahu xayrun xaafida gis ngeen baqaratu bani israil baay ja dafa nekkoon ku baax yar ak njobootam ak soxnaam bi mu demee bay faatu xale bi nekk tuut tànk mu jël nag wi dem ba ca àll ba yeew ko ne yàlla dénk naa la nag wi ba saa doom ji màgg allahu akbar yii ay mbir la yoo xam ni bokk yi benn boo ci xool da ngay xam ni maanaam yàlla subhanahu wa taala nit ki bu ko wóoloo mu nekk ku baax mu góorgóorlu dénk ko njabootam ak di ñaan suñu boroom suñu boroom dana ko wërsëgal kon buntu boobu mi ngi noonu mooy nit ki tànnal doomam baay bu dee jigéen bu dee góor mu tànnal doomam yaay waaye muy ñaan yàlla subhanahu wa taala ci njobootam yàlla wërsëgal ko qurrata ayn comme ni mu ko waxee ci melokaane ibaadu rahmaani ñaar yii nag mbokk yi ñaar la yoo xam ni borom xam-xam yi yëngu ci wàllu tarbiya muy ulamaaw tarbiya dañuy wax ni ku ci réussir ci ñaan gi réussir ci tànnum soxna wala tànnum borom kër gi maanaam jafeñ-jafeñ yi su fekkoon dañ ni yoon wi daa am ay jafe-jafe dañ naa yow li gën a métti ci yoon wi dog nga ko su fekkee nit ki dafa échec ci foofu borom xam-xam yi dañuy wax ni tiital ndax yow la gën a jafe nga essayé jàllut amaan na kon yi ci des doo jàll moo tax ñaari léeg-léeg nag nit dana takk soxna ci waa jamono nit ñuy takkee soxna ndax daa xamul diine moom kooku nag muskil dëgg la nag moom nit dana takk soxna ci waa jamono ni ñuy takkee soxna nga dem tuuti yëf yi dab la defe naa loolu am na de yëf yi dab la loolu métti ci xol dëgg la mbokk yi xam ni bala ngaa tourné yaa soxna si ba njaboot gi tourné tey ñu bare bare ndeysaan ñoo xam ni seen ak njaboot meloon nañ bëgg lii da ko waral mooy dañoo jaaw dañoo dañoo meloon noo xam ni xamul woon diine dem ba mu yàgg yëf yi dab leen pour nga jubbanti sa njaboot dana jafe waaye am nañu yàlla defal tawfiq am nañu yàlla defal tawfiq lool ñoo xam ni bañ dëppee lañ dëppaaleeg seen njaboot loolu mu bëriwul de waaye tegees na ci bët ñoo xam ni yàllaa leen defal tawfiq ba ñuy tànn ca tànninu waa àddina lañ tànnee woon waaye bi leen yàlla wanee diine dañoo dëpp seen njaboot dëppaale loolu nag fadlullah yutihi man yasha wallahu dul fadlil azim su ko defee kon ñaari yëf yi nag mbokk yi su jàllee nag darsab suba bi insha allah maa ngi koy def ci sifaatul murabbi an naajih léegi nag yarkat bi nag nu muy mel moom léegi maanaam yarkat bi tamit tey bu fekkee xale bi mel na ni mu war a mel jaar nga fi nga war a jaar waaye yow fekk mënoo yar la waajo na ko ida kaana rabbul bayti bi duf bi duffi da daaribu boo dikkee ba ci buntu kër gi nga fekk borom kër gi ci ëtt ba ma nga tiim tamate di tëgg di fecc mu ma nga tiim tamate di tëgg mu ni boo geesoon nga seen njaboot ngay fecc moom bul wax dara bul wax dara fala shakka anna ahlal bayti raqisu waa kër ga moom dañuy daal di fecc kon am na ay jumtukaay yoo xam ne yarkat bi ci boppam moom nga war a yore ci ay jikkoo ki melokaan am na ay yëf yoo xam da nga ko war a moytandiku pour xale bi nga yar mën a yaru dar sama jotop insha allah ñu doog a def nag xale bi nun koy yaree boo jógee ci marxala bi dem ci beneen marxala étape bi dem ci beneen étape boo jógee ci étape bi dem ci beneen étape te yu bare bare bari yu mat di bàyyi xel la léeg-léeg dinaa koy faral di takkaraar mooy xale ci boppam li ko tax mu jafee yar mooy xale dafa bokkul ak mag mag da nga koy jox ay directive bàyyi ko mu demal boppam waaye xale da nga koy jox ba noppi topp ci ginnaawam di ko gunge misaal bi ma joxe woon keroog ci wàllu nàmpal mën naa koo joxewaat beneen ci wàllu xale bi am aajo léeg nga gis koo xamante ni ci wàllu yar xam nga ñun dañoo foog ni yar gi mooy defal bul def yonent bi nee na yàlla nee na aajana sawara fekk déedéet même ci dox li ma waxoon ci wàllu nàmpal léegi xoolal koo xam ni xale bi dañu ko euh, ci misaal damaa xiif damaa xiif wala damaa bëgg a toog ci pot bi ci misaal ngeen baal ma ci kàddu gi maanaam da ngay gis koo xam ni xale bi ci jëmmi boppam aajo jooju mu am ñàkk ko cee fekk si mën na koo lor lor bu méttee méttee métti goo xam ne ci wàllu santeem la koy lor moo xam lekk la moo xam naan la moo xam nelaw la moo xam lu mu mën a doon léeg-léeg sax ngay def loo xale ba yëg ni kii mën a tut dafa gëmmantu wala dafa nangam nga bàyyi ko mu dem après boo paree am na dars boo war a joxe yooyu defe naa ñun yarkat yi tàmbalee ko ci baay ak yaay ak ñi nga xamante ni ñooy ñun jàngalekat yi nga xam yàlla moo ñu nattuwaay gone yooyu yu ma tabàyyi xel la kon nu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq te di ko ñaan ci turam yu sell yi ak melokaanam yu kawe yi ñaari yëf yi yàlla na suñu borom dimbali ñu ci bu fekkee tàndoon nañ ca tànn wa yàlla na suñu borom gën noo dëgëral su fekkee tànn wa daa jàdd yoon it nu ngi ñaan suñu borom yàlla na yàlla jubbantil nu suñuy njaboot ndax wa aslahna lahu zawjahu am na ci borom xam ñu koy tekkee donte am na ay tafasir mooy yàlla jubbanti ay njabootam ba ñu nekk ñu baax ginnaaw boo xam ne xëy na am na tuuti jikko yu ñaaw yu amoon ci ñoom nu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq defal ñu ko suñu njaboot wa sallallahu wa sallam ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain